stress. mi mi mi kii dañoo pàccax pàccax pàccax pàccax. waa euh, di wax asalaamaaleykum ah. Sénégal yëpp di leen nuyu gars yi na soo mi daw may dégg. waaw waaw day dégg sama yaram. Ah. i ka dawloo. Ah. may jooy. Ah. dafa naay. Eh, tey jii nag asalaamaaleykum <laughs> téléspectateurs bu ñu. dañuy bëggee. Mhm. dañuy kontaan. Mhm. te wal fajiri no stress. lala no stress. no stress no stress <laughs> pas de stress. et puis suñu invité baa ngi dee. c'est le bégué total. yes sir. di wax ni Pape Ousmane nii lay demee saa su ne. Mhm. amul tricherie ah lépp c'est naturellement bàyyi faal ma. waaw tey nag euh, ñu ngi dem Bandar Géej fekk fa une diva boo xamante ni dafay toj lool. gane àdduna si mil cent 1988 yàggul de. muy xale bu ndaw nekk d'origine mauritanienne ah waaye di Saint-Louisienne nag. Mhm. ñu koy wax Lady Nancy. Mhm. gars yi gën ko xam ci Marème Niass. Mhm. bo kor ah, Doudou Fall Scotty production. tey jii nag moom la ñu dalal. waaye balaa mu naan asalaamaaleykum damay bàyyi téléspectateurs yi ak auditeurs yi nekk si 80 13 point ñuy bàyyi xel ci 3w.walfnet.com waxaat ko ci kaw maanaam yaa ko wax léegi mooy ca rajo am na ñuy bàyyi xel instant bi ci internet bi ci 3w.walfnet.com ndeysaan ah ak ñuy bàyyi xel en oh. direct ci Walf TV oh là là donc dañuy déglu voix wam artistiquement artistiquement allez dem gaay <laughs> Lady Nancy school podium Lady Nancy from Saint-Louis du Sénégal la diva La première fois que tu m'as embrassé, j'ai tout de que je rêvais. Tu m'as donné la force de rêver. Maintenant, chaque jour, je pense à toi. Et chaque nuit, je rêve de toi. Je pleure de toute de ne pas te voir souvent. C'est comme si je du sable la première fois mu egg. woy gi may woy dama ko tibbee sama xol. fas yéene di leen wan li ne li ne sama xol déglu sama ba ma ko bëggee yow du tey mbëggeel bi dafa yàgg lool ça dure une éternité mbëggeel garab la bi sax the man that I love. He's my destiny, is all need in this world. Falling in love. xale di naan si woy ci anglais woy ci français woy ci wolof. anglais français wolof. Ah, te day woy ci tukulóor. lay wax ni ah, day woy ci naar. ah waa xam nañ li may wax. Ah. boo xamante ni histoire la. Mhm. lu émission bi di gën a dem si sa di nga xam. incha waaw waaw ndax dina am fu ma koy jox après di nga gis. Euh, c'est une diva boo xamante ni nag. Mhm. balaa ñuy continuer nga nuyoo ak askan mhm. bon maa ngi nuyu uh, waa waa Walfadjri yi yëpp di nuyu sama tata chéri bu baax waaw waaw mag di ko wax tey moom macha allah son nga kontaan naa ci <laughs> <laughs> ok ok waaw waaw waaw vraiment di nuyu sama ndijaay kii sama ndijaay la mhm. kii sama début la fekkee ba léegi kii dara ump ko ci lay di naan si ma koy nuyu bu baax a baax di dellu ndar nag di nuy sam papa di ko seet di ko papa baax yaa ngi tane bu baax a baax waa jaar raw nuy samay goro <laughs> nuy sam alin Aline ak soxnaam di Garmi Diop di sama yaay waaw su ma wàccee nuy sama ñaari doom yi kooku di nuyu waa raw yëpp. ñëw na waa si caaxoy Azur parce que fi nga yeewoo. Mhm. di fa fanaan ñu bëgg la. te bëggantuñu la loolu dara mënu koo fay. Mhm. waa di nuyu la famille Ndiir trawaree sama papa Jabel Sène famille Guèye di nuyu ñëpp asupuy ak euh, jëkkëram mhm. di wax leen nan si mi ngi nii. Ah, waaw léegi Nancy léegi Nancy is. at home is is back. Lady Nancy is here. di nuyu Aïcha di ko wax maa ngi bëggee bu baax ak Biba Line. sama bébé waaw waaw Lady Nancy. Mhm. ñun xam nañu kan la Lady Nancy commencé musique. bon ñu ngi commencé musique euh, en 2006. Mhm. voilà euh, officieusement mi Lady Nancy ba mu nekkee xale parce que dama amoon amur de mes parents surtout sama papa. daan déglu musique mais officieusement maa ngi à waaw moom nag dafa dellu woon ay Edith ah. ay Georges Brassens. Ah. surtout Edith bi moom. Ah. dama dem ba gën a di ci gëstu parce que ma yàgg déglu mu koy woy je ne regrette rien bi. non je ne regrette rien. le bien comme a fait, ni le mal, tout ça m'est égal. Bob laa leen may. mën ci bii boox. mën na ci bii boox mën na ci bee boox. macha allah lii di naan mhm. tey nag nga ñëw si school podium. Mhm. lii di ñëpp xam nañ ni jaar nga ci bàngu école. si école ak musique. Mhm. lan nga ñu ci mën a wax. waaw parce que ñu bëri dañuy wax ne mënuñu aligner école musique mais moi je pense bien que ne booy def musique fàww nga jàng parce que tamit tu as appris à voyager da ngay dem à l'étranger da nga fay fekk ñeneen donc boo amul base bi doo ci mën a nekk. Mhm. te parce que artiste bul wax ne am naa staff kii mën na ma traduire lii wala kii mën na def lii wala kii mën na def ma non non yow da ngay am bagage ba pare voilà staff bi ñëw nekk fii pour man un artiste. am base mhm. mu waxuma de nga jàng ba sore am ay diplôme de formation parce que ku nekk ak sa jàng li ko dagg ak fi mu yem mais pour man nga am base mhm. kon euh, waruñoo fowee euh, jàng bi non non non waruñu ko euh, fowee ñaar la yoo xamante ni war naa mën a dem benn mënul dem bàyyi ma non non non non mënul am na ci ñoo xamante ni Souleymane Faye daan na ko wax mm. bu ne am na mu ne boo ku jàng boo uti xam-xam boo amee boo amee alal te xamuloo. ku jóge fële mooy ñëw jëriñoo sa alal voilà ok d'accord mais tamit euh, gis nañ ni xale yi léegi. Mhm. farataalu faral farataalatuñ léegi jàng bi. Mhm. comme avant suñu mag yi ni mu daan jaral. si ci suufu euh, lampe. si euh, lampe. ñu bi seen kay foofu toog jàng mhm. ba pare tëjaat seen kay dem gis nañu xale yi léegi farataalatuñ jàng bi loolu nan koy interpréter si am na ñoo xam ne tey ba ba léegi parce que lépp éducation de base la parce que tey bu dee ses parents di lay éduquer ci jàng tous les moyens son bons da nga war a jàng mais toujours damay dellu si ci parent yi parce que am na ñoo xam ne bu fekkee da ngay xëy nga dem bureau tu descends à 18 heures sa papa du fa nekk kenn du fa nekk donc yow doo mën a jàng parce que yaa ngi ci net bi yaa ngi ci télé bi léegi yëpp yëpp accessible euh, voilà gadget yi yëpp dafa accessible léegi nag du ma ne mais am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi jàng parce que ku nekk rek boo xoolee li ci gannaaw di nga mën a jàng nga dem man bu ma sañoon ñu jàng bu baax voilà waaw naa si nag euh, comme que dañuy dañu bëgg aussi Euh, étudiants yi ak élèves yi toog nii di seetaan seen émission School Podium. di béggee. waaw euh, waaw sound deuxième son bi ñuy indil ban la. dama gis ba léegi musicien yaa ngi ñëw ah. waaw waaw musicien ah, ñëw na ñu attaqué deuxième son bi tonton Jibi. waaw ma ko tonton Jibi ñu attaqué deuxième son bi. waaw waaw ba pare. voilà kan moo war a yore euh, tëgg yi tama yi. kii bi waaw leket bi ñëw na. Ah, xam nga ñun man Lady Nancy je mm-hmm. parce que je me dis que tubaab bi li koy jaaxal mooy liy jóge ci sa suuf lu dëgg nijaay. ndeysaan mm-hmm. wax dëgg mu euh, lay <laughs> muy góor mbaa jigéen. way bi le yow yaa su may xool télé eh. ma gis. ay xale di dee. wala bu ko wéy nag koy wéyee mbir yi naan. naas bu ko wéyee dér bàyyi rek. métti maa rek yow jàmm rek lay ñaan ci Afrika jàmm rek yow jàmm rek lay ñaan ci Afrika mu ñëw ci Sénégal ñu daal di àndandoo di fo di ree di wër. ndeysaan lala lala lala moo gisee ma fàttali ko lii c'était en 2007 ah. si. c'était en 2007 lañ defoon son bi maag moom mu nekk si ay DBM. waaw bul mer mais mais noonu la demee. xam nga maa moom ñoo ko defoon benn featuring. waaw waaw ñun ñaar ñoo ko woyandoo woon mu nekkoon son boo xamante ni bu. yéeme man ñëwuma. boobu nag déet boobu lan la yow xam nga foo ne. parce que bii daf may fàttali ndax moom man ak moom. ci moom laa njëkkee def vidéo. moo tax ma la dañu yàgg boobu maay nekk lu ndaw waaw su ma ñëwee mun ma nan fecc da def nii xam nga vraiment mënuma wax sama parcours te duma ko wax waaw dootuma la génne ci nga bokk laal après dama lay booleeg euh, Nelsi nga bokk ci staff bi voilà moom day dem de day day ci kaw di dem di ñëw <laughs> de day dem di ñëw di dem ci nasaraan yi ci galaas ga oh. waaw dama bëgg ngay ànd maintenant boole naa la jeex na léegi nag léegi wax dara ñoo far. je ne veux pas que ñu perde du temps. si nañu attaqué deuxième morceau. waaw bii nag dama koy woy euh, immigration clandestine Wednesday night. surtout. nu mu tudd voilà et Wednesday night xam nga dama jël ñun Baby King. Wednesday night. Mm. askan boobu ma adapté woo ko. woy ko immigration clandestine. mais dama koy à ma façon voilà approprié ko à la Lady Nancy. traditionnelle sénégalaise ma du. Mm-hmm. Ladies and gentlemen. listen listen I am very happy. di leen présenter. lady. lady. yow kese happy woo. we are. we are happy. yes voilà de vous présenter. aywa li ma lady. Nancy. Ah. Rainbow Band. when night has kër gi li may ragal mooy ngeen foog ni yéen a war a téye kër gi topp seen yéen a mi jël loo coow jubali yoonu barsa fekk yéen ngi jubali yoonu barsa man seen yaa topp soxla mbokk moo waral ñi dee c'était les bul jël gaal. waaw jël gaal yore ko. merci pourquoi nga xalaat loolu. xam nga ñun nag ndar. bëri nañu bëri ñoo xamante ni ay doomu ndar. doomu yaraax mhm. tefes yi daal ñu dëkk ci tefes bi ñu bëri ñu des si gaal bi. noo jàngatee loolu. waaw li ma gis ci immigration clandestine parce que dernier euh, info yi ma am. Mhm. dañu amoon euh, ay immigrants yu dem. Mhm. te li ci li ci gën a grave mooy dootul Afrique rek ah. non non non dootul Afrique ñëppay dem. 3000 mhm. euh, ñoo dem 1500 dee ci. xam nga loolu tamit oh, non non non c' est pas la moitié 3000 dañ dem ba yegg. Mhm. mu am ak yeneen 1500 yoo xam ne dañoo dee. info info yi moom mujj dégg ah. récemment maa ngi gis benn bébé de 3 ans sama yaram dafa daw. waaw dafa dee ci ci ci bato bi. waaw mu nekk image boo xam ne dafa metti tey képp kuy yaay. képp ku jur doom da nga xam ne dafa metti man bu ma sañoon boo ndax dëkk bi lu mu metti metti li ngay bàyyi fii moom ngay def fee. ban moment nga bind moom. waaw ñaata temps la toll. non non morceau bi ba ma koy bind parce que man yëg-yëg laay demee. dama toog di seetaan journal ci benn chaîne télévisée boo xam ne c'est pas. ici au Sénégal c'est pas ici mhm. ma gis euh, immigrants yi nu ñuy demee ma jël bind. waaw ma bind yëg-yëg boobu laa am ma ne puisque ñun ay porteurs de voix lañu la voix des sans voix. kon nit ñi tey ñëw nga ci këru la voix des sans voilà donc puisque maa ngi ci këru la voix des sans voix. comme on donc ma ne woon naa ko bind parce que nit dina toog néegam déglu ne léegi nan si nee na lu ñuy demee dara wóoru ci. voilà. Euh, loolu moom am na solo loolu yaakaar naa ne gars yi jëlee nañ ci njëriñ. histoire bi la riyee ak Rainbow Band. waaw waaw Rainbow Band moom dafa nekk histoire boo xam ne. tëgg mhm. parce que ñii ñoo ma jàppal seen bopp mhm. man bu doon man Lady Nancy rek man kese mhm. ñii ñoo ma jàppal seen bopp bëgg ma ñu la jàppalee ba pare jàpp la waaw parce que tey euh, maa ngi remercier dafa am suñu benn grand bu fi nekk boo xam ne tey amul kenn ko xamul daal la musique sénégalaise muy Tafa Sok moom wax set euh, tey euh, dafa yor studio mu gis Lady Nancy mu ne damay jàppale leen Nancy yaa grand Moussa mu bi Samb moom it ma koy nuyu de passage. dafa soog ak a mën marimba. ay marimba rek lay def. man léegi xam kan lay baas lay baas. ah léegi da day baas dafa technicien la woon bu mag. non ren boo band la xam nga ñun fu ne la ñuy mu mhm. Moussa Gueye ah, di nuyu euh, grand Moussa. Moussa ñoom dañoo jóg ne dañuy jàppale Lady si mhm. voilà mu nekk ay ni xam ñoom Philippe Bernard tonton Djibi di sama star. nee naa ko yow bu ma xalaatee Fouta rek yow yaa tax waaw di sama saar yaa tamsiir sama guitariste waaw après danga may présenté gars yi dama leen benn anecdote ndeysaan mës nañ dem ñaaxar tëggi bay ñëw ndeysaan oto bi di daw di dévier tali bi noonu rek ñu dugg si benn genre ndox mi taayooy càng say na la jaaxal nga dama sama dil boo xamante ne waajaak ma doon xaar léegi nag fan laa jëm heure bi ah Moussa daf may woo man fan laa jëm heure bi tafa <laughs> mbaat lu yàgg mu nekk koo xamante ni dafa yàgg jàppale musicien yi ah man jamono yi ñuy commencé suñu carrière artistique yóbbu nañu deux fois ñaaxar sonorisé ñu mu nekkoon ci Moussa Gueye mu nekk koo xamante ni dafa yàgg kon nag ku gars yi war di tàccu la ci Sénégal léegi nag one by one présenté ma musicien yi waaw euh, sama grand Tafa Sok moo yore basse bi mon ami mhm. waaw yaa sama sama ndijaay sama xarit muy jibi tonton jibi mhm. moo yore leket bi di ma yàq foofu ci roq bi waaw sama patron mi ngi nii na le plus grand des patrons Philippe waaw mooy sama man patron rek laa koy wax. mooy bi. waaw moo yore solo bi. ok mooy borom solo bi waaw voilà yaa Bernard sama clavis moom it ay patron gisoo gars yi. patron leen de. waaw waaw Tamsir a nga ne. ci roq bi waaw. vraiment yaa ñoom Didier. ñoom Martin ñoom ñu fi nekk. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen bëggee. waaw di naa bëggee léegi nag. bi ñuy demaat troisième morceau. Ah, ah. waaw waaw. waxtaan. mbi bëggee ah. waaw waaw dafa am ko gisee musique bi muy def nii yow. ok euh, sànq nii mi ngi xaw a ngéwale tuuti ah. Mm-hmm. musique bi muy def neex na loolu macha allah mais ce que musique bi dinañ ko dinañ ko consommer fii Sénégal sur musique bi ngay def. si si si diñ koy consommer mais xam nga Sénégal maa ngi nuyu suñu ndaanaan yëpp di def mbalax mbalax moo fi gën a kii. Mm-hmm. mais ñu ngi koy consommer parce que am nañu ay melomaan yi fi nekk ba pare nu on a la chance suñu musique diñ koy consommer feneen. Mm. day génn. Hmm, waaw d' accord yow style musique bi ngay def. même bu fekkente ni dégg wuñ euh, consommé wuñ ko fii comme ni nga ko soxlaa taux bi. bi euh, am na yeneen dëkk yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy déglu. voilà mais boo sañoon tamit ni ñu koy dégloo foofu ñu gën ko déglu fii tamit. voilà waaw su ma sañoon mais puisque. ni euh, ngi nekk Sénégal te ñun ñëpp dañuy dox j' espère que avec le temps. Euh, musique bi world musique bi dina dem parce que je ne suis pas la seule à le faire. Mm-hmm. donc puisque bëri nañu. peut-être daañu dem ba Sénégal di ko gën a consommer et tout voilà. d'accord Pape Ousmane loolu de laa mën a waxagum ci euh, musique bi nga xamante ni en tout cas en tout cas kontaan naa moom la nekk di def neex na. Ah? neex na trop neex na c'est dégluwable. li muy def c'est dégluwable. ku ko déglu da lay berse. c'est agréable et c'est délicieux. c'est agréable à à à écouter. donc ñu dem ci troisième morceau Lady Nancy. waa di ko may waajur yëpp. Ah, bii waay jur la. waaw waajur la di ko may waajur yëpp nag. parce que waajur bu nekk dafa sonn ci doomam. Mhm. waaw di leen ko may ñoom ñëpp nag. kii moom dafa tardé moom mooy kan borom lan la. <coughs> mooy jili. ay ah, kii kay di jili waaw moo yore bi. jili jili foo nekkoon <laughs> ah. allez bismillah ay <laughs> ci jili. ñu dem kon moom morceau bi ngay woy jur yi moom war na cee mën a am lu mu tëggaale. waaw ayca jili mën ngaa yegg noonu ci kaw ci wetu borom casquette boobu. jaar nu maag yow hey fi ñu jaar nu maag yow ma yaay bu jigéen voilà fa nga jeexale foofu ngay commencé waat foo dem fan nga jaar ak sa waajur parce que xëccaat nga morceau bi mhm. musicien yi arrêté dangaa xëccaat morso bi foo jaar ak sa waajur waaw parce que tey dama koy ñaanal fi mu nekk gën fi mu jóge hmm. tey bu ma sañoon lii mu fekkee ko mais jaam ak euh, pexeem pexeem yàlla ak dogalam hmm. sama yaay euh, fi ñu jaar mi ngi mel ne tey mënuma wax fu ma jaar ak sama yaay te duma ma jaar ak hmm. ndax nga nekk doom ñu choyé la ñoom ñaar dañ ma choyé des fois gàtte la gàtte ma surtout sama papa moo ma jëngal moo ma njëkk a jàngal feccan ah. ngeros man a sama jàng fecc xam nga tey sama papa bu yàqee fii yaay yàq fee tey sama yaay mu nekk loo xam ne man tey Lady si mais Lady bëgg naa nga préciser yàq bi façon yàq bi waaw voilà yàq bi mooy euh, dugal nañ ma ma jàng normal mhm. euh, defal ma li ma bëgg mhm. teg ci nag li ma gën a defal comme hmm. voilà yar boobu moo am solo man yar boobu laa wax ne ñoo ma yàq parce que tey ñu ma deful woon yar boobu ci man tey man du ma yegg fii hmm. parce que jigéen dëkkul këram waaw du dëgg ma leen remercier euh, moom ak sama papa ndegam sama papa moo fi nekk yal nag fi yàlla bàyyi allahumma amiin yal ko gudd fan ak wér amiin di ko may yaay yëpp di ko may Adja Garmi Diop yaay bu sonn ci njabootam wala la waaw di ko may sama yaay lu mu tudd sa yaay sunu yaay lañ ko bëgg ma dama ko may sama yaay jooju nañ ko jox sunu yaay yëpp ah, nañ ko jox sunu yaay waaw ñu jox ko yaay yëpp yaay yëpp lañ ko jox mi ngi fi voilà mi ngi ci kaw suuf ñu jox ko ko ñi nga xamante ni te seen waajur bu jigéen fekkeewul euh, bés bi tamit ñu ngi leen di ñaanal ñoom it fi ñu nekk jamono ji mu élève bi nga xamante ne moom lañu liggéey euh, maman Ndoye Dramé ko koy jox bu baax a baax euh, sama yaay Awa Diop Ndiaye maa ngi ko koy jox moom ndeysaan sama maman déedéet du sa maman juru la maman Awa Diop Ndiaye tu es ma maman à moi je te confie cette chanson Euh, di ko may aussi euh, sama benn xarit ndeysaan bul ma meree sama xarit nga madame Coulibaly mm-hmm. depuis Parcelles Assainies eh, unité huit borom école yaay rek yaa ah, ak école Maymouna sama xarit nga euh, incha allah rabi suba dinaa fa jaar ñëw ziar si la maa ah jox nañ ko monsieur madame Bonheur monsieur et madame Bonheur <laughs> waaw Gibraltar centenaire borom ndogu yi neex yi ay Pape Ousmane waaw mais rek tey sama chemise bi loo ci Pape Ousmane loo sama chemise dinaa la jël après hors antenne nice caro yi caro li non li du caro cassé ah caro la c'est Papi Fayar Loub de Thiès ok moo d'accord c'est très joli ma léegi every Saturday jigéen. non bu sa doomu ndey laa moo fi jaar. ne ko ah, ah? ma lu ma semaine bi yëpp lay solal. voilà donc di ci béggee Awa Basul ak bëgg yaayam. ni ni may toog mu ñëw fekk si balcon ma ne ko lan la mu ñëw ni nee na. xawa hmm. maa ngi koy may di ko may sa yaay. Mhm. Euh, Nancy. oui. lu waral Nancy. Mhm. bàyyi ndar ñëw Dakar. non du bàyyi sax waaw ah. waaw hmm. bàyyi ma ndar c'est une question ndax euh, ndax man lu ma am hmm. man ndar laa am hmm. ndar laa di sama premier pas ndar laa dëkk xam nga am na ku ko benn waykat benn ndaanaan bu ko way nee na jàmbaar dawul dafa wuti doole dëgg la waaw tey waa ndar chaque jour dem leen kax dama ne leen seen doom dafa génn wuti doole xam nga leen naan fu mu dem ñu bëgg ko Dakar ñoo ma bëgg ndar xam naa liñ ma Dakar bëggee ndara karaw te maa leen gën a bëgg waa ndar di leen wax seen doomu ngi ñëw waaw. am na benn prix boo gagné woon lay di naan si prix boobu prix lan la. waaw waaw <laughs> prix da dafa xaw a bëri tuuti. waaw waaw waaw voilà mais bi ma ci gën a marqué euh, mooy euh, prix bi ma gagné woon euh, les femmes chantent le sida boobu c'était en 2007 moom moo ma may ma am single bi génn au niveau international au mhm. niveau de l'Inde c'était concours boo xam ne je représentais la région de Saint-Louis mhm. pour que les femmes chantent le sida mhm. yàlla dogo ñu doon jël 6 pour ñu def compil bi ma jël deuxième voilà compil boobu génn am na yeneen i prix yoo xam ne lu toll ne euh, am na euh, lauréate avec waa plan bëri na bëri na yi ma def mais yi ma ci gën a marqué yooyu la parce que yooyu tey mooy doomu Sénégal moo génn Sénégal dem fee mm-hmm. relation euh, lii di nan si ak Scotty lan mooy Scotty waaw Scotty moom xam nga dafa am benn basketteur bi nekk NBA mm-hmm. moom bu ñu koy tuddee Scotty boobu xamantewuñu mm-hmm. bon mu daan def basket ñu tuddee ko Scotty looloo indi Scotty bi relation euh, ak Lady Nan c'est parce que boo ma laajee euh, relation ak Mariam ak Doudou moom mm-hmm. man ci xam mais puisque relation Lady Nan ak Scotty voilà parce que Scotty euh, mi ngi découvrir Lady Nan si en 2006 jël Lady Nan si jox ko turu Lady Nancy di accompagner Lady Nancy ba tey ñu Scotty production di ko nuyu bu baax di ko wax duma tàyyi di ko remercier Doudou Fall waaw parce que tey euh, déplacement am day xaw a difficile voilà mais xolam a xelam yépp ngi fi di ko wax ne lu mu mënti doon même bu ma dajalee award si yépp je ne cesserai jamais di ko remercier one love est que tu boobu nag Lalla mooy borom kër ah? waaw mooy borom këram mu nekk koo xamante ni koo koy jàppale la moom aussi nekk nekk artiste ah. mm-hmm. yore yore studio di ko gérer bu baax a baax ñu ngi nuyu nag de passage suñu yaay mère Garmi. waaw mère Garmi gisoo sànq maa koy nuyu. di bëggee ñoom ins waa ñoom Sène Fall Baye Fall waa Scotty production Saint-Louis di leen bëggee ñoom ñëpp. Nancy ñaata album nga génne wala ñaata single nga def. non pour l'instant génne gu ma album dama génne ay single. dama def style bu nekk ma génne ci single def ko ci net bi mais j'ai j'ai benn compil bu génne niveau international. mais loolu est non non non parce que dañ ne ñun yoon la ñuy nekk. ci mhm. yoon. Mhm. parce que tey euh, laala bul fàtte ne boo bëggee dem boo naawee da ngay daanu te amoon laa eh du dëgg dafa ngéwale nag yow xanaa doomu ngéwal ngéwal déedéet dëkk ngelaw ngéwal rek raw jàkkaarloog ñoom nii. déggal lii du dëgg. Ah. di la nuyu bu baax waa ngéyeen <laughs> mhm. waaw xam nga dañ ne booy dem da ngay raam. parce que ñun ay ndaw lañu. luy jar bay daanu. man loolu laay wax. d'accord yow doo géwal <laughs> géer bu set wecc nga waaw. ñas la sant ah ñas laa sant de am ma jaltaa bay sama papa su ma la su ma la waxee euh, wax bi la may tontu directement <laughs> bàyyi loxol geen ci kaw mike bi <laughs> wax nga lu yàgg bàyyi loxol geen ci kaw <laughs> waaw xam nga jamono boobu ñu ngi woon ci hut bi ci rappeur di yëg waa di xeex ak rappeur yi wut bi la wax de. Ah. <laughs> mais si ñamal benn rek benn rek tuuti rek benn rek. waaye loxol ngeen ci kaw microphone bi waaye loxol ngeen ci kaw microphone bi waaye ah. loxol ngeen ah. loxol yow ngeen. <laughs> loolu yàgg na boobu maa ngi xëccoog waa kii <coughs> Mass 42 di buuxanteeg ñoom ci concert yi boobu maa ngi toll nii di rap. macha allah waaw xam nga yooyu yëpp expérience la. parce que côté boo ko waxee mu ne munoo def musique te doo def hip hop man hip hop moo pour dire léegi naan si hip hop moo ko defar. waaw léegi nag lépp donc ci hip hop lañ dooree. voilà hip hop di mbapat di mbapat ba léegi nag maa ngi mbapat. mbapat rek waaw waaw di mbapat rek. waaw bi baax na. di fait que ñëw nga leeru jamono yaakaar naa ne téléspectateurs yi ñoom gis nañ la te découvrir nañ. si fii euh, School Podium li ma koy waxee laal la duñ fi invité como. déedéet kuñ fi invité ku ne rek day fekk ne yow am nga benn bagage boo xamante ni. téléspectateurs yi toog après man dañ may woo. Mm-hmm. ki nga invité woon may woo ba ay États-Unis fu ne ki nga invité woon ki nga nous fait plaisir. dénicher benn euh, jeune boo xamante ni kenn xamu ko. mi ngi ci ruqam di liggéey liggéeyam mm-hmm. xam nga wal fajiri loolu rek la fi nekkee. Ah, ñu nekk ñu rafetlu la voix des sans voix voilà la voix <laughs> des sans voix. Pape Ousmane waxtu yu daf ñuy dépend. waaw xam naa après. Euh, to euh, ci musique bi nga xamante ni mm-hmm. moom lay def parce que yaakaar naa lim na ñi nga xamante ni ñoom la àndal ñëpp mm-hmm. yow dañuy bàyyi rek ñu tàggatoo comme ça ñu mën a terminer rek yaakaar naa ne dese nañu ay ay ay waaw non dana ñëw parce que xam nga yow boo naree boo naree lim boo def naree def gannaaw bu ma sante yàlla man tamit ma def gannaaw bu ma sante yàlla naa si tamit def gannaaw bu mu sante xam nga loolu dafay xaw a jël temps hmm. donc te temps bi du xaar wal fajiri leeru jamono dafay dox rek ci chrono donc euh, dañu bëgg dara bàyyi bàyyi dara mu sedd ko ku euh, Pape Ousmane xam nañ ni daal li nga fi indi woon euh, neex na am na solo naa si moom it bëgg dañoo xam tamit lan lay tàggoo téléspectateurs yi ay projet lan si voilà pour l'instant parce bu neex waaw nga pour l'instant maa ngi hmm. ñu nekk ci ay projet xam nga looy togg hmm. di ko rosi hmm. xeeñagul munoo xam lu ñam la di sax dëgg la dëgg voilà <laughs> instant bi ñu ngi nekk nan si mbaay waaw <laughs> pour l'instant ñu ngi nekk ci ay projet mais insha rabbi ñu ngi ci yoon nekk ci ay projet euh, di préparer album Lady Nancy ñu ngi ci hmm. di ci nekk ñu ngi ci mais instant lu ci aboutir rek incha allah rabbi dinaa ñëwaat fii hmm. jox ko téléspectateur téléspectatrice Walfadjri yëpp hmm. waa jox ko waa Sénégal bon au fait euh, li may tëjee mooy di nuyu waa Caaroy Azur yëpp sànq lim naa leen waa Caaroy Azur Caaroy waaw di di waaw di nuyu sama sama sama soxna sama jabar di ndey binta mm-hmm. waaw di nuyu sama bébé Jules Sock mm-hmm. waa ndey bint su ma ñëwee di di liggéey si daf may teral seetaanu ma benn yoon waa xoolu ne jëkkëram moo tax may yaa ngi ñëw di liggéey si mm-hmm. moom day bu ma ñëwee rek daf may def à part di ma seet nu ma ne di ko waaw waaw beral ma loxo di ko nuyu bu baax di nuyu ñëpp studio yi may liggéey Mobi Sound yee di ko nuy Moussa Diagne di nuy ñëpp. d'accord waaw. Euh, waaw mu nekkoon nag lu am solo ah, ki ñu dalal dafa jara dalal. Mhm. ndax li muy def def ko mën. Mhm. son nom commence par S. S waaw d' abord S c'est sincérité. <laughs> sincérité ah S waaw waaw S c'est sénégalaise. voilà ah S c'est sage. voilà kii clair bi ASC Brésil mhm. xam nañ bu baax li may wax ndax yàgg na leen yóbbu fu sori ki dama ko xam ki ma invité nii xam mhm. mu nekk loo xamante ni da génn rek yem ci raay ba toog ci raay bi ndeysaan di la màq ngay dóoru rek ah, yàgg waaw li may wax ni xam naa ko voilà toolu buur waaw ay yu yàgg ñoom Pape ah, di ko nuyu bu baax maa faal Khadija Ba Khadija waaw yooyu yàgg lu am solo mhm. tey jii dama kontaan noonu lool di la dalal xam naa tey waa Ndar yëpp gis nañ si seen bopp Ndey Penda ba madame Ñaan gis na ci boppam madame Mbuub gis na ci boppam ah madame Ndiaye chéri ma Seck fële ci Belgique gis na ci boppam donc nag di leen dig daje insha allahu rabbi ce ci rajo bi nag Reggae Vibes à partir de 22h30 ba 0h di leen bàyyi ak léegi si. incha allah léegi man ma nuyu man ma nuyu euh, xam nga tey damaa ñëw ak forme bien vrai que absenté woon naa temps yi yëpp. Euh, d'abord damay jaale sama grande sœur sama mag boo bokk ndey ak baay moom magam moom euh, këram moom moo làqu mardi. ba lëb Diop doon liggéeyee 2STV yi. donc di ko ñaanal sunu borom bi teere ko ci àjjana firdawsi yi. nekkoon koo xamante ni bëggoon na mbokk da daan dajale ay mbokk. koo xamante ni it lépp loo xamante ni lu baax la. da ko yéene doomu aadama yu bàyyi fi njaboot gu sew njaboot gu ñu fi bàyyi nag suñu borom bi yàlla na ci teg loxo xawoon naa triste euh, jooyoon naa et tout donc képp koo xamante ni sama xarit ci Facebook bi ñi samay collègue ñi ma doon euh, wax condol mes condoléances ñoom ñëpp maa leen di jaajëfal bu baax a baax sama xarit ci Facebook waaye damaa dem euh, ca euh, wii di massage parce que dama xawoon a kii woon tuuti meroon waa xawoon a fasu xam nga ma dem euh, wii di massage foofu ca Yoff Apix 3 Abika wala Biba maa ngi lay ziar bu baax a baax Ami Kana ak Ouligé Ami moom moo ma doon massé Ami macha allah tu as des doigts de fée ah naa fi indi waa Walfadjri yëpp ñoom ñëpp nga massé leen ci kattanu suñu borom bi. premier candidat yow. ah ba nga dugganteeg naa si man dama kaa fekkee René Charles Fall laa koy wax. Renu Fall déet bu na si a mel la man ak moom ñoo mën a nekk si ngoon ngoon rek vibe si bi fii wal fajiri kenn du ko attan tey ci guddi waa naas merci beaucoup ah. euh, waa Lady Kumba <laughs> asalaamaaleykum Lady Kumba lii di coiffure Lady bi moo ma yóbbaale madame Diagne derrière le collège Saint Thiandoum maa ngi koy ziar bu baax a baax ci bopp bi te damaa osé def tuuti blonde euh, xaw nekkaat beneen nit ab sa madame Diagne. mais am nga doguma la am nga numéro téléphone am 77. waaw limal 727. 34 48 77 727 34 48 mooy numéro ab sa woo leen ko mu defal leen ay perruque bu baax defal leen maquillage yu baax yu amul fenn. dama am ñaar ñu ma woo di la bégee. kenn ki mooy DJ Boubs. Boubs men kenn ki mooy grand frère Boubs maa la bëgg sama xol. keneen ki keneen ki keneen ki mooy Don Diego. Don Diego muchacha. xoolal le milliardaire saoudien. <laughs> Ah, Don uh-huh. may deew damay nuyu. xibaar yi mi ngi ñëw xoolal xibaar yi mi ngi ñëw léegi 19h ak fan. di nuyu Ndeye Mbaye ñoom ñoo jaar fi yàq leen nag si ni waaw d'accord donc euh, xibaar yi mi ngi euh, ci ni mu gën yaatoo ci kàllaamay wolof di ngeen am rek euh, li nga xamante ni moom moo di journal bi ci kàllaamay français ak Ramatoulaye Ba à partir de 20h 21h Thiamas teew wax leen programme grand soir bi ni mu tëddee rendez ñun ci Njogonal suba la ñuy dellu ci kàttanu suñu borom yéen ñu gis mu doon leer ngeen ñuy dégg muy neex kooku dafa fekk ni Diatta René Charles Fall ak Thiaba tàggatoo. waa doomu séréer laay tàggoo xam li nga bëgg xam li nga doon boo ko defee sama waay doomu séréer American that you sold. ci bontararare dagg ci bontalare dagg ci bontararare dagg ci bontalare dagg ci bontararare li nga bëgg a xam li nga doon boo ko defee sama waay